Ndiaye Tafa. Hmm. Ah, ana sa masque ba nga def nii. masque kay li ma ci daj démb. Eh. li ma ci daj démb. démb de su ma la waxee ne jàpp nañu ñaari junni. ci masque te te romb naa kuy jaay masque ñaari ñaari téeméer. nga nay koo jënd. wallaahi Tafa yow tamit yenn saa yi ñu ngi ne père ça ma ne ko ça va mu ne ma an sa masque. ma wokkatu. mu ne ma duggal cote <laughs> ma dem mu bindal ma këyit fayaloo ma ñaari junni. ñaari junni ma ne ko doom li dépassé di mu ni sama yoon nekkul si. mag ñi du leen jàpp waaye ñem naa de. waaye nag gis nga ñi ñi ñuy jàpp. Mhm. ñi tilim leen ñi tamit waroon nañ leen di jàpp service d'hygiène waroon na topp fu police eh, toog eh, ñu jàpp eh, ñeneen ñi tamit am na masque yu onze tam. waaw tilim leen te takk moo gën ki takk ki ki ki nga xamante ni bi baaxul yaa ngi ndekki. ça va yaa ngi ndekki. ah bonne santé bonne santé. tu as bien dormi. il y a un a un doon gént la dama doon gént lap. lap. ah lap. c'est bon signe. loolu moo moo ma jàpp lap moo signe dee. ndox. waaye <laughs> ndox la am xorom la fekkoon ndox taw la si lay doon ay xéewal wala yooyu mais ndox mu ànd ak xorom. wala ay fitna la yow maîtriser nga lépp ndox gént ko baax na. Ah, taw féex la d'accord d'accord c'est bon signe c'est bon signe. léegi euh, li may ñëw mooy Tapha. Ah. fu mu toll. doomu bàyyi bu nit suba teel ba toog à table da koy may mu lekk ba pare. ba digérer. Mhm. jalonné tuuti. waaw lu digérer. dama lay wax rek Tapha fu mu toll nga naan ay lekk digérer. bàyyi xam nga yow lu la yàq. Ah. yow ci lu ñu dugal rek day ëpp. yii gogo yow beew nga di. doo def naa may ma comme gis nga heure bi jot nga ñëw di ma wax salaamaaleykum yeewu ko tonton Tafa. woo nga laaj ko fu kër gi toll parce que xoolal boo ko may bul jàpp boo ko may raf mu def la ko. bàyyi ko soog. non non sama fii nii. Hmm. yow damaa sensible baal ma baal ma. waaw dinaa ko fi mu di ko dégg ma taxaw mu nga ñu ko nga am woo ko ci kanam lan mooy lan. nit de loo màtt moom foo mu koy woo. waaw déedéet tamit. ndax mën naa indi beneen ji. waaye lii lan la. soxna si rek ngeen. allo. ci loolu ne nii. eh man la ko kon naa ma njéeme. waaw. bayu ba. njéeme yow sama bagage xamoo fi ma koy jaay ah njéeme. saak bu ñuul bi def kanaar gi bu ko laal ba ca bi ñu suuf def kër gi soxni. tonton Tafa bu la nit woowee déglu eh eh eh bu la nit woowee da koy may ba mu ba mu daaneel lan ngay njéeme nii ak suuf bayu ban bayu. am na saag bu ñuul bu ma def kànnaara du woowu beneen saag bi ma def bu zone bi. armoire boo boo bee bayee euh, ñuul bu kànnaara bu ko laal. waaw woote eh eh. Ah. moom anam dafa ñëw waaw jox ko kër gi kay jox ko kër gi kay. soo koy jeex na <laughs> waaw jeex na jeex na waa kay baax na soo paree tëjal ma armoire bi nag soo tëjee pare tëjal ma armoire ba mu dëgër nga denc caabi. waaye coupure kii waay kii xaj na waay. mais dafa am mu dafa lan lay wax nii. naan salaamaaleykum woote du ma may ma nuyoo laajte. mu naan la bàyyi bàyyi kañ la xew yi bàyyi. bàyyi man bàyyi mag ñu njëkk ne liñ daan def ay bagages. man la suufu bàyyi. Oh, <laughs> waaw bàyyi léegi lii fu ñu koy waxee. salaamaaleykum du ma may ma woote. wax lu tax ma tegul bisu damaa xam ni fenkat la. dama ko doon tës léegi lu ñuy def. xaw lii laa doon bañ bu ma fekkatee may lekk waa déglu rek ma wax la bàyyi di couper samay appétit. kon da ngaa sama appétit coupé. da ngaa suur waxal ah, ko suur waxul doon. lu tax ñu bëri tiital xale jigéen ah coupé sama appétit. sa giri kaña gi nga xëy may ma nii bu ma lijjanti tey du sotti. xanaa baat da nga jaay sa kër. déedéet dafa am ñu jaayoon seenu kër dénk ma kayit bi. ñoom laa leen doon jox. ah ca man kay damaa foogoon nag da ngaa tiitaloon nga ma sax <laughs> waaye noonu baax na. waaw nit warut am nëbboo ak jabaram. wallaahi Thiam Dogo Faly Maaw ku ma sàmba yaay Jallo de noonu lay def ak man. Ah. fi mu ne nii kayitu këram ak daraam ëpp ma. kayitu këram gaa ngi nii maa ko denc. mu ngi fii ci sama armoire ma jël ñaari mbuus takk ko ba mu dëgër ma jël ko sama armoire yibbi sama suuf yére dugal ko ci. Ah. waaw man sama nijaay. Hmm. amuñu nëbboo. Hmm. na couple daa war a am discussion ku ne wax. sama robo amul nëbboo. waaye di lëx lëxee ko nëbbatu. waaye nag ñu jubu dong ñoo koy def. wax la benn mbir. Hmm. kayitu kër dañ koy denc foo xamante ne fii ay kaña duñ ko lekk. ndax mën nga denc kayitu kër kañay lekk mu des tuuti da ñàkk de. ay dama ko protéger damaa jël ñaari mbuus. takk ko ba pare jël ab tiset lëmmas ko ci. jinax mënu ci dara kaña di ko def hmm. ma yëkkati nag ne ko fa yomb xanaa xamoon nit dina ubbi armoire am rek tëdd dee nii ñu waxal na la fekk ay këyitam wala ay yëfam la kaña lekk te kaña dafa bon day lekk ba mu des numéro bu tuuti mu bàyyi la ko fa doo xam foo ko jëlee rek jàpp ah gis nga mi a yàq nag ah, moo tax kuñ nii da nga mën a yàq ne kaña laal nañ la kër gi ko denc baax de ko denc bu baax ah. lay lay la laa caam faaleen kooku xam nga li ma defal dafa yomb ah, ndax jël sa jabar mm-hmm. confiance dafay augmenter diggante confiance gis na diggante bu xatee mm. bu confiance duggee diggante bi day écarté am élan la ma defal ñu bari dee nañ fi seen njaboot niin seen alal niin ndax fañ ko denc di nëbb yàlla du la tàggu bu lay wàcce bu lay yóbbi du la tàggu maa ngi noonu damay dem ah, foo jëm ah, damay génn di ah yow nijaay tafa waaye bàyyi ma génn rek man daal waaye te ma caam dogo di def <laughs> ak man dogo faali ma sàmba yaay moom ma ma xale baa ngi nii eh, lii ko fi dëkkee <laughs> eh, lii ko fi dëkkee biir Ibra naajo ak ak ak a waay. moom ma rakki moom mbaay maay moom mbaay ñëw na de ma ni looy def nii. voilà ma xale bi daa mën a way xaw waaye góor gi daa bëgg dem toilette aajatul insaan la jëm. waaw eh gisoon ni damay damay liggéey. bala balaa balaa ngay dugg ci biir dafay fekk man ma liggéey ma liggéey ba ba noppi. yow li moom mbaay lépp raxasul na duusi. booy liggéey nag man damaa yor cabinet yu mën a xaar damaa yàkkamte damay xëy a yow sax moom dangaa dangaa dangaa civilisé wul. Hmm, hmm. ana ngay ñëwee nga xam ne na am na lépp. dëgg la clim ak fi ngay toog lépp am na fi nga naan dangay jël satala dugg dugg ci biir. aada douche yi su ma ci duggee yéen lépp courant koy doxal. boo duggee fi mu ma duggee ak ubbi seen affaire boobu mu tëj nag du ma am fekk takk naa ba noppi nu may def. fii nag mu soo dara du fi tëj. dara leerul la ci yaa lu waay sanal nga am. en da ngay raxas taxaw ba pare dégg nga. defal lu gaaw rek rakki moom moo mbay bàjj moom moo mbay bu moom moo ñëwee da xam ne ñëw na nga may ko mu jàll. lu gaaw defal lu gaaw. Eh, da ma jël sama temps. mais ngeen ma la da ngaa xamul li ma yëg rek sama boor bi daa mel ne waali si la fanaane tëgg démb sama boor bi li ci ne mi ngi gurguri nga lax bi la du yàgg man samay mbir dama ko teg ci orom te sax damaa lekk loo xam ne fi ne su ma duggoon xaw ma laax yoro xaw ma yorox laal la xaw ma too tooyi mbéb la xaw ma su ma duggoon rek taf taf mu baax na gaaw na gaaw. di nga di nga xaar. ngay mat xam nga ne ko soxore nit ñi. defal lu gaaw nag yow nag léegi ngir yàlla ko. ah ngir yàlla. waaw moom père. naw naw ay ay ay ay dem de dafa am ngir yàlla. Ah, moom père bi day yàgg de demal rek bare ko fee rek. bare ko bare ko fee. Idi Idi te ngaa dem yow it. may may waxtaan yow. ma ngay wax kay waxtaan ak ku safa di man billahi kon moo taxit di nga di nga di nga gaawal nag gaawal yaa ngi wax rek nag idi idi pare ko non non man nag pare naa damay dugg nga nga taxaw de eh. booy booy xam nga la la xoolal taxawal fii taxawal fii dégg nga ma la douze bi dañ maa fay pour ma koy ne. dañ la ko fayee defoo formation de man yow defoo formation toilette toilette dafa am lu bu nit ñëwee da may mu dugg ba pare nga raxasaat omo yow a waaw may ma ma dugg waaye mën na ko maa xaar waay. boobu xet dama a toloore. Hmm. Hmm. Hmm. laa soxla woon. fëri bët sax. kuy for bët. man maa doon nelaw ci biir walaay. waaw def ko lu baax. lu xew. Moustapha. Mhm. tey damaa bëgg nu waxtaan ci ñekk ataraana. la. waxtaan wi nag soo gisee ma bëgg ko def. Mhm. damaa bàyyi ba sama soxna dem. mais naa profité waxtaan ak yow. moom nag war naa bàyyi yi muy def nag de moom bàyyi di def rek di dem. saa yu defee dara rek génn kër gi. Moustapha moom demul de. marché bii la dem. Ah, damay occasionné wu pour waxtaan ak yow. Ah, ci njëkk nag ak teraanga. d'accord Moustapha. Hmm. depuis des des certaines années. Hmm. fee nga xamante ne ni dama fa dama faa denc sama këyitu kër. mooy hmm. këyitu kër gi nu ma këyitu kër gi boobu ba léegi mënuma ko tëj ba. loolu jàpp ñàkk nga la bi këyitu jël sa kër kër ni mu seere ci jamono ñu toll nga jël ko abale ko ah waaw kooku abal Moustapha man abaluma sama kayitu kër waaw fan ko tegoon jël nañ ko laa la wax ah danoo jël sa kayitu kër waaw ah waaye loolu doy na waar kër gi moom ku fi jël léegi gis nga euh, kayitu kër da nga koy denc def ko am sécurité def ko foo xamante ni kenn du ko mën a jël kayitu kër nit ñaa ngi koy denc sax yenn saa ci banque loo xool ba sa kayitu kër da Moustapha ah lu am lu musta am ci kër bu amee rek ña fa ñëw la maanaam ah déedéet déedéet billaay Moussa Moustapha waaw déedéet déedéet déglu ma gis nga wax góor nga te da yor soxna kër gi maanaam yow ñoo fi ne ak sa soxna amul keneen ku mu rax bu dee dafa am yoo xam ne nag dafa fi day manqué te daaw fi manqué léegi waxal wax ko kese loo loo bëgg a wax lan nga bëgg a wax. xam nga la laa bëgg a wax. waaw xam nga lan laa bëgg a wax. yow laa loo bëgg a wax. man ak yow ñoo bokk nekk ci kër gi. waaw ki ma yor xam naa ko. waaw musuma teg dara mu toppale ko. <laughs> kon bu ma demee ba dara di manqué ci kër gi. maay sàcc Moustapha waxuma la yaay sàcc ba waaye. déedéet man la yow sàcc. fii man maa fi ne ak yow ak dërëm sa jabar léegi nag bu fekkee dara dafa am lu fi manqué nga ne dafa am lu ko déplacé laa yi kan kana kan mooy kan fii. man ngay jiñ sàcc. jiñu ma la sàcc. man ngay jiñ sàcc yow. xoolal Moustapha Moustapha bàyyi bu ñuy wax ngay mbéb mbéb nga koy yuuxu gi demee man ngay jiñ sàcc man ngay jiñ sàcc man non dama rek yow man loo am ba ma koy sàcc Moustapha yow lan nga bu ma rusuloon dara yàlla xam na ni dama la yóbbu police ba kan wala ma duma la ci kër gi ba nga tëdd dama lay dóor ci kër gi ba nga tëdd yow kaay nag moo xam ah. leen yor naa ponkulum sëriñ moo xamante ni ne ma nga Casamance ngay ma teg <laughs> appelé ko fa bàyyi appel ma bu ma koy woon ñu ñëw nga ñëw ci kër gi génnal wuy ma te Moustapha sama kayitu kër dina feeñ ponkal nga yor man ma yoruma ponkal ma kenn sa ponkal moom na ci Casamance bàyyi ko ca Casamance maa ngi ñu raxoon direct sa ponkal moom lijjantiwu ma ko boo ma tooñee dama lay dóor ba nga tëdd ci digg kër gi Moustapha yow da nga ma da nga maa mën a dóor yow ma ne góor bi eh! dama lay rey de Moustapha dama gaañ wax bi jeex na de Moustapha koy mbëkk hmm. eh Moustapha yow di nga mas rey nit de yow bu kër gi nga ma et dërëm